tey ñun conseillers municipaux yi nekk ci Ndar Kepp HLM nga xamante ne ni ñu ñoo tànn ci suñu tayeef 2014 ba ñu palee maire ki ñuy wax sa Sadikh Seck indi ay leeral ak ay yaatal ci ni ñu yoree mairie bi boobu ba léegi ci biir loolu mu am ay taxaw seetlu yu bari yu ñu def ci ay jafe-jafe yoo xam ne maire bi teg na ko population yi ay luubal yu kenn mënta japp xel mënu ko nangu motax ñun ñi nga xamne ñi ngi fi tok kenn ku si nekk si ñun ñew pour dénoncer lolu en tant que ay conseillers municipaux ñun ñep ñi fi nek ay conseillers municipaux lañ looloo waral tay ñu ne ñun kat ba tax élection yi ba ñuy fal 2014 population daf ñoo sasoon nañu boo leen demee na ngeen ñu saytul suñu copar ak suñu doxalinu mairie waaye France xëddéem li ñu jot gis l'oubal bu metti bu fi nek ñun bokku ñu ci yool ñu bëgg artu maire bi suñu population bi wax leen ni ñun loolu ñu ci ba tax na ci biir loolu am autorisation de construire joxe naa référence bi sànq si autorisation de construire arrêté numéro 15.

ba tey boo demee si stade municipal bi nga xam ne ñi ngi tabax mu toftaloog marché HLM mën ngeen dem foofu ngeen xool ko jox na leen photo yi di ngeen gis ni luubal ak càcc moo fa nekk ndax dafa am benn société bi ñuy wax Socabek signé woon benn contrat ak maire de Dakar ba woon ak acte trois de la décentralisation ñu gis ni loolu yëpp dafa tuxu ci mairie HLM mu yor responsabilité bi waaye ba mu ko yoree ba léegi def ci benn pexe kaw téef ci li ci gën a doy waar mooy dafa fexé ba ñooñu di conti continuer di tabax ay cantine tey liñu waxon ak liñu ñu déggee askan bi ba légui dafa guñ ko stade bi ba légui kenn livré ko ba taxna tay ñaari projet yi nga xam ñun dañ ko saytu càmbar ko gis nañ ni li ko tax jop moy fexé ba am kom am xaalis fexé ba nga xamanteni ni cantine yi fa nek dañ koy exploiter té population bi duñ ko yëg conseil municipal bi di ko en tout cas ñun ñi day bok ci conseil municipal bi ñi ngi yëkkati suñu baram wax ni ñun yëguñu ko bokku ñu ci ba taxna ñu ngi leen di joxeñ tamit ay baaram tuuma ci ay parcelles yoo xamante ne nii dañ ko complot ñenn ñi di ko exploité te conseil municipal bi yëgu ko population bi naka noonu ba tey dégg ngeen fi fan ci mbas mi ñuy dugg di Covid 19 mu am benn enveloppe bu deux cent vingt millions bu ñu dégagé woon enveloppe boobu ba léegi ñi ngi wax ni niñ ko séddalee tey na suñu xel loolu yëpp nag boo ko booleek luubal bu metti bu nekk ci poste de santé ak centre de santé bi nekk HLM nga xam ne dañuy yëkkati ci lu toll fukk million ak juróom mooy 15 millions woon di leen ko jox ñaari at ngi nii boo leen demee laaj leen ñoom gisuñu dara foos xa dem loolu yëpp nag moom moo tax tey ñu gis ni luubal yu metti am na ci mairie bi ñu jël suñuy responsabilité en tant que conseillers municipaux ñu dem def benn lettre benn bataaxal wax ko maire bi ne ko na tontu ci liñ koy wax ndax lii tey na suñu xel. amuñu am nañu ay preuve yu leer waaye dañoo bëgg laaj ko ba xam moom lan lay tontu lettre bi bañ ko defee mi ngi toll si ñaar fukki fan ak juróom-benn ci wàllum juin weeru juin mu bañ say tontu ñu taaxirlu ba ñetti fan si wàllum juillet ñu bindaat ko beneen ba daaxal mu bañ say tontu looloo waral ñun ñu jooy ko fa mbax doonee benn mooy sous-préfet Grand-Dakar nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu kilifa waaye moom nee na dina ko càmbar te dina xaar ba octobre. mu convoqué benn conseil pour ñu wax ci loolu ñun duñu xaar loolu population yi dañ ñoo fal dañ leen war a wax dëgg sàcc ak luubal moo fi war a jeex looloo tax tey ñun ñëpp ñu dajaloo bokk ndey bokk baay ñëw waxtaan ak yéen wax leen ni tamit porté nañ plainte nag ci benn courrier boo xam ne mi ngi dem si le deux mille 2020 li nga xam ne nag ñun moom la ñuy toppee maire bi mooy yorin bu tàggatémbe ak bu ñaaw a ñaaw bi mu yoree maire HLM mooy njëkk li si tegu moy souf si nga xam ne HLM bëriwulew ko ñu war koo xool ni koy liggéey pour askan wi mën say gis sen bop mu koy loubal di ci tabax ay cantine ak lu nekk mu def jël ben promoteur bo xamante ni amul délibération jël promoteur bo xam amul appel d'offre mu jox ko marché cantine yi daf see war tontu maire bi ba tey dafa wa addu si lan mo waral depuis 2014 HLM gisuñu ben infrastructure ben investissement bu mu def. dépensé mairie boo xamante ne nii li ñuy dépensé en fonctionnement may ndox courant ak salaire moo ëpp li ñuy def si waa HLM li ñuy def seen bopp moo ëpp li ñuy def si waa HLM looloo waral ñu ne ñun ñi ngi njot ni maire bi dafay luubal xaalis dafay am ay contrat fictif ak ay employés yoo xamante ne nii mi ngi koy teg ñu am nañ ci ay preuve kayit yëpp ñi ngeek ñun boo ñu ko laajee ñu jox leen ko ba tax na ñaari at a ngi nii foofu ma laaj jeexalee comme ni nga ko waxee woon lu demee ni ASC HLM ak euh, ASC yi si toftaloo yëpp ak poste de santé ak centre de santé bi gën nañ gis xaalis gën nañ jot xaalis te ñun ñi ngi jot euh, budget yi ñi ngi délibéré di wax maire bi naka naka naka defee ni ñu ko waxee waaye du rendre kenn xelam moo ko doy ñun nag loolu yëpp métti ñu naqariñu moo tax ñu bëgg wax ne ñun non seulement bokkuñu si waaye dinañ ko wax population bi luubal bi ñuy toppee maire bi ëpp na un milliard te am nañ ci ay preuve yu leer ñun nag duñu xaar ba mbir bi wéy mbuus dañuy baat le fer quand il est loolu mooy communiqué bi ñu leen sant bi ñu santoon pour ñu wax leen ko boo leen amee ay question am na samay naataango yu nekk fii yu si demee ni ñi ma toogal